alhamdulilah ñu ñëw leen seen revue de presse lamb alxames tey jii la ci gën a fës suñu lamb ma ngay ñëw ci booloo doon benn bi ñuy xaar ngir mën a mànkoo wuti ay ndam mu di Ama Baldé mu di Boy Niang 2 suñu lamb mu ñu xamale boole nañ seen doole boole nañ doon benn objectif yooyu yenn la mooy soq ñu jàppale ko ngir mu am ndam ci kaw Franc waaye tamit kii di Ama Baldé jëli roi des arènes bi ki nga xam se ni moo di Père de Gaulle ma ngay xam le ne léegi désormais Ama ñooy ànd di entraîner ñooy defandoo seeni i contact ñooy waajandoo seen i combat te ñu ngi ci jaajëfal Pape Sarr bu baax a baax moom wane leen doomu Pikine la te saa su ne ngay bëgg mbëri Pikine ñu ànd doon benn waaye ki nga xam se ni tamit moo di Jules Baldé maa ngi ko cee jaajëfal bu baax a baax man dégool te daañu ànd ci liggéey bi bu baax a baax ngir Ama Baldé Boy Niang di entraîné ndoo ginnaaw loolu Baye Mandione Junior suñu la muñu xamal leen ndax sanction dina dal ci moom ginnaaw xeex bi mu xeex digganteem ak la muñu xamal ne ndax sanction dina ko dal moom Baye Mandione Junior di rekk ci Baye Mandione ki nga xam ni mooy Jili Wade di bu Baye Mandione suñu la muñu moom moo nga xam si ni moom moo yor Baye Mandione ma ngay défendre Baye Mandione bu baax ndax defal na ko recours ci kanamu CNG di xaar CNG ngir mu mën a kase verdict bi wala mu jox Baye làmmuñal victoire ki nga xam si ni moo di Sambay la jeune promoteur de Thiaroye suñu làmmuñu xamale mooy tëgg la 29 mai ma ngay waajal amateur yi lu neex ci diggante Batista 2 bu xam sa cosaan ak fils de Max Mbargane bu Lansar suñu làmb ñu xamale Giro Seras ndax mën na jaaxal ki nga xam si ni moo di Tonnerre 2 ndaxte le 29 mai mooy seen combat suñu làmb ñu xamale en tout cas dernière sortie daan na nokki yaa jël bu rëy ki nga xam suñu làmb ñu xamale ma ngay waaj digganteem ak Balla Gaye 2 waaye ma ngi def nànk ndaxte combat ba ba dafa xaw a sori moo tax fi mu toll ni day maintien nànk-nànk ci entraînement yi suñu làmb ñu xamale moom Boy Niang ak Eumeu Sène ba ci Ama Baldé dimanche mën nañ ba ci combat Mama Lamine Garga 2 ndax ka tëgg combat boobee la moo tax mën nañ leen faa xaar ki nga xam si ni moo di Zarko doom yaay mobile 2 wala ñoom ñaar ñi bokk seen grand suñu làmb ñu xamal ne Zarko ma ngi koy plaideel ma ngi koy jàppale bu baax a baax di wax ci moom di communiquer ngir waa CNG daan bi ñu teg ci kaw mobile 2 ñu mën a teggi sanction yooyee ndax mobile 2 mën a bëree combat am ak tonnerre mu ñu xamal ne suba ci am na ci droit dëkkuñu waaye nag yëg seegul ci man pour bëre ak man ndaxte man maa mujjee am ndam te fi toll nii maa ngay xool ci kaw kon na liggéeyaat bu baax a baax ngir mu mën a dikkaat ki nga xam si nii moo di Lac de Guiers numéro toll nii coow li wuyu si na ko bës bi ñëw na suñu la muñ xamale miraculeusement la ñëwaatee moom Lac de Guiers li nga xam si mooy coow li ginnaaw interview boo xam ne Ama Baldé def na ko tudd ko ca moom Lac de Guiers 2 suñu la muñ xamale na ci devant de la scène nekkaat na li nga ni moo di actualité moom Lac de Guiers numéro 2 laa la muñ xamal ana kon ban promoteur wala mooy ñëw tëggal leen diggante Ama ak Lac de ndax Lac de fi mu toll nii xewaat na moo nekk ci li nga xam si ni la Monde Mbaye ma la analyser waaye moom jàpp na ne ki nga xam mooy Garga 2 a bëre gim gëj a bëre loole du tax mu perte repère ndax boo liiree ci kanamam xam ne mi ngi bàyyi xel làmb ji waaye ki nga xam se ni moo di Maama Lamine mooy Ibra Mbaye moom la jox favori daanaka ci boobule combat may xam leen ci wàllum bëre lutte pure Maama Lamine la ca gis bu baax a baax ginnaaw loolu ñu sant leen gërëm leen jox leen di daje niki suba incha allah